Comment ça va La rubrique. À ta l'antenne, Maïté. Voilà, donc euh, comme nous me 5, euh, on avait parlé hier des anémies euh, à plastique. Aujourd'hui, on parle des anémies hémolytiques. Donc pourquoi C'est toujours dans le même aspect à part que fille, c'est un déficit carrément de globules rouges, en fait. Donc Donc, y a un manque de globules rouges pour bu bëri boo xamante ne un waral donc a un euh, type d'anémie. donc xam nga que xam globules rouges et globules blancs protègent le yi euh, système immunitaire donc si manqué rek ci ci organisme bi rek

mooy fièvre jaune bi ñu doon wax noonu xam maa ko doon expliquer démb <laughs> parfois anémie bi daf lay jox impression que ne da nga am euh, fièvre jaune parce que réaction yi muy am bëti jaune yi yaram bu pâle bi et cetera en général boo amee fièvre jaune moom noonu la lay def donc c'est pareil par contre boo amee ci yenn anémie du def même du du du réagir noonu mais ci anémie bii nii nii hémolytique bi mën na la dem ba yóbbu la ci sp boobu nga dem ba mel ni ko am fièvre jaune na am jaunisse quoi donc xam nga boo amee jaunisse moom la plupart du temps on as tout le temps des vomissements da ngay sonn à longueur de journée

donc euh, muy euh, muy bien aspect boo xamante dafay japp sa rate bi au fait day augmenter rate bi rate bi lay yokk lay yokk volume rate bi donc du mm. coup daf lay def genre kii yoy non donc d'habitude buñ ko bëggee détecter comme ni ma ko expliquer rek anémie moom en général bu ko médecin yi détecter ay analyse la ñuy def dañuy def ay analyse sanguin yoo xamante ne moo leen di permettre ñu mën a déterminer exactement lan mooy cause ou réaction auto-immune immune boobu noonu nga xam ne sa yaram mu ngi koy def mooy manque de globule rouge boobu noonu léegi euh, ci lañuy ñuy euh, xool ban traitement lañ lay jox en général traitement bi nag ci ay corticoïdes lañ koy des traitements à base de corticoïdes, lay nek mom lañ lay jox euh, wala ñu jox la ay médicaments yoo xam ne da euh, fay da lay permettre nga mëna euh réguler waat sa système immunitaire voilà donc euh, mën na dem nak ba yegg ci ben ablation chirurgicale bo xamné te rat bi la dañuy obligé dindi rat bi pour mun a euh, permettre la nga retrouver waat sa équilibre normal maanaam sa globiruge yi mun a a euh, dellu si waat normalement nga mën a continuer euh, anémie bi dañ carrément quoi mais dépendre na rek comme li ma ko waxee ci étape bi nga xam te ne moom nga toll ci type anémie boobu noonu xam nga comme ni ñu ko doon waxee la dernière fois ci par rapport ak yenn feebar yi bu ci nekk ak aspect am bu ci nekk ak ni muy réagir donc anémie moom bëri na façon gis nga déjà anémie simple bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko mooy bi nga xam ne da ngay manqué deret mm-hmm. da ngay da ngay voilà sa bët yi di paal ak mm-hmm. yooyu am na anémie euh, plastique bi ñu doon wax démb nga xam ne non seulement doo manqué da ngay manqué globule rouge globule blanc sa plaquette sanguine yi tamit dañuy dañuy dañuy dañuy am problème bi yooyu yëpp dina fi nekk mais problème bi globule rouge lay alors bu globule rouge yi moom xam nañ organisme donc automatiquement da sentir ci sa yaram voilà nga commencé di di am ay mm. commencé di xam nga di nga jaune mën na la jox mën nga ci rax mën na raxaale jaunisse. mais mais léegi loolu loolu tey jii bu fekkee ne dem nga ba sentir ko. Mhm. Euh, soit da nga dem ci spécialiste wala généraliste. wala am na ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci ci ci côté boobu. waaw donc euh, de donc comme ni ñu ko waxee comme ni ma ko expliqué la dernière fois xam nga tey par exemple boo demee ba sentir ne par exemple am nga ay étourdissement am nga ay vertiges ak ñoom seen premier réflexe bi ngay am mooy dem seeti généraliste. généraliste bi moom moom comme on dit rek mooy ki nga xam ne moom ngay njëkk a seet bu fekkee xamuloo non lii la dal parce que tay bu fekkee xam nga lii la dal peut-être tu peux dem directement ci spécialiste bi ki nga xam dafa spécialisé wu ci loolu mais bu fekkee leen yow par exemple lu lu bees lu nek ci yow te xamuloo lan la da ngay ñëk dem ci généraliste bi mom généraliste bi mom moy def constat premier constat bi xol def lolu ay analyse comme ni ma koy waxee à chaque fois mom bu la def lolu ay analyse bi obligatoirement foog nga yóbbul ko analyse parce que daf lay ne demal def analyse nga indi indiwaat ko mom bo indi indiwee analyse ci lay doga def diagnostic bu baax bi xam ah ki kat lii ak li moko dal donc pour loolu il faut que mu yóbbu ko ci euh, par exemple spécialiste feebar boobu noonu pour nous mën la traiter mais en général anémie yi moom même les généralistes le il y' a pas forcément de y' a pas besoin d'aller vers forcément vers c'est spécialiste moins que mu am ben aspect bo xam genre cardiologie le wala genre pneumonie je sais pas voilà mu war exemple par exemple war a euh, euh opération genre chirurgie etc. à ce moment-là nous mën nañ la orienter mais sinon ñoom personnellement nous nañ faire le traitement bi nga xamante ne moom adéquat pour nous la dimbali ba nga tané. donc le généraliste rek il peut le faire voilà donc tu peux aller juste voir un généraliste moom dina la xool. Mhm. defaral la les les les trucs nécessaires alors ce qui bàyyi attiré may attention ci nit tout le temps mooy parfois nga dem seeti médecin dalay jox traitement. Mhm. joxaale la analyse à faire. comprendre nga nga jël analyse yi teg ko fee parce que naan nga say garab yu nga à l'aise pare nga ci feebar bi mhm. jàpp nga ne yow wér nga de telle sorte ko doo def analyse bi mhm. alors que li ñu ci xamul mooy parfois analyse yooyu noonu même du budul sax par rapport ak li nga xam ne moom ngay traité sax leneen mun nañ ko ci découvrir comprendre parce que parfois analyse dina dina détecter ba détecter lo xamante sax peut-être médecin bi xalatul won sax ne dina ko fa fekk donc motax c'est important pour ñu la joxé ay analyse à faire nga dem défi ji ko alors fi ñuy defee analyse bari na parfois les gens pensent que c'est un problème de moyens mais il y a des centres sociaux yoo tu fais des analyses là-bas tu ne payes rien du tout sous la nexé nak pour mu gëna gaaw parce que habituellement les les les les centres privés yi nga xamante ñom ñoy def analyse yu mag yi nga xamne mom la ñëpp xam fi ñooñu dañuy cher parce que ñoom seen analyse dafa gaaw da ngay def tey sa analyse en deux jours maximum ou même le lendemain mën nga ko jot. ils ont un investissement très coûteux. et pourtant nous koy envoyé en en Europe. Mmh. def ko foofu yónnee waat lañ ko ñu jog la mën a jox résultat yi alors c'est pareil aussi pour les autres centres mais problème bi mooy délai de voilà délai de de kii bi mooy différé daal livraison moo tax ñoom euh, ku ci nekk tu as le choix soit si tu as les moyens nga dem ci bi nga xam te moo gën a mmh. pour nga mën a teel a résultats peut-être mën a teel a faju mu leer nga am information yu claire su dul loolu nga dem euh, juste ci euh, ci centres sociaux yooyu noonu nga dem def sa analyse toog xaar ñu ne la par exemple ñëwal dans une semaine ñëwal dans cinq jours nga ñëw récupérer sa te du nekk xaj na si diggante boobu voilà te du nekk xaj na si diggante boobu comme tamit euh, voilà par faute de moyens di nga continuer di jël say garab di sentir à l'aise mais bu résultat yi génnee dama récupérer ko nga dem yóbbul ko médecin bi nga xamante ne moom moo la ne indil ma résultat yi mm-hmm. parce que moom li tax mën a def loolu analyse boobu am na fu mu ko teg voilà am na peut-être lu mu détecté wala lu mu gis wala lu mu yaakaar parce qu'en en général dañuy yaakaar a am affaire donc loolu tax ñu lay testé loo deret bi bu ñu ko deret après résultat yi dina ko prouver sox ndax li mu voilà voilà parfois ñu def benn diagnostic analyse yi ñëw def di wax le contraire du diagnostic boobu noonu à ce moment là dinañ ne ah kon traitement bi ñu la doon jox par exemple waruñu la ko jox oh, traitement bi lañ la war a jox alors su fekkee defuloo analyse bi fekk joxoon nañ la benn traitement mun nga dem tamit ba ci bi traitement boobu indil la ay complications alors boo dellu siwaatee ci médecin bi te indiloo ko analyse yi bay lu lay wax moy ana analyse yi mu la lajone nga def ko ah parce que lolu moo koy permettre moom mu xam exactement il te renvoie d'ailleurs voilà il te renvoie wala mu la euh, demal defi jiko legui et cetera et ça peut même te coûter encore plus cher. plus cher c'est comme les femmes enceintes, hein, gis nga dem hôpital quand tu vas pour accoucher c'est pareil tu fais pas tes analyses avant d'arriver à l'hôpital duñ le temps tant que defoo analyse yi dañ la naan demal fay ji léegi mm-hmm. express ñu defal la analyse ça peut te coûter plus cher alors que peut-être beaucoup ko defoon bu yàgg loolu yëpp dina ci fekk tu ne perds pas de temps parce que temps bi ngay xaar analyse yooyu ñëw lu ne xaj na mm-hmm. lu nekk xaj na te ñoom dañ ci exigeant côté boobu noonu dañ lay léegi léegi amatuñ sax kaf da dugg ci hôpital bi ak sa état nga dossier comme il doit ñu la mm. dossier complet wala la au pire des cas d'habitude euh, ce qui se passe moi en fait il te demande le numéro de ton médecin Prétend mais ça il faut vraiment que le médecin ait de la volonté. quoi mais même ça Les même même ça mm. hôpitaux sont tellement stricts que mm. tu n'amènes pas ton dossier médical. ne touches pas, c'est vrai. Mm-hmm. parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de complications am New York mm-hmm. c'est vrai parce que tu tu es en état tu as le droit de faire des suivis médicaux ba ça accouchement peu importe ndax sage femme la wala gynécologue la wala spécialiste loolu mm-hmm. yow la concerné ak say moyens mais da nga ko war a def moo tax ñu jox la carnet de santé boo xam ne mooy prouver ci biir carnet bi y'a toutes les informations concernant mm-hmm. ce état de grossesse donc ñoom ci loolu la ñuy basé wu pour mën la defal accouchement bu normal sans complication tey boo ñëwee sans papier boobu ñoom nan la ñuy xamee ban état c'est que nag may de dafa neexul ba neexul nag waaye nit moom doomu aadama bu ëmb wax dëgg neex yàlla daa wala am këyit boo xam ne bi mu ëmbee ba ci bu muy accouché daf ko bi a yóbbu loolu moom

am nañ globule rouge ah donc muy muy femme enceinte bi muy personne normale beeg yooyu ñun ñëpp am nañ ko moo tax d'habitude sax boo gisee euh, en général jigéen bu bu wérul bu am problème mu anémie les médecins sont très stricts ak moom dañ koy suivre à la lettre suivre mais suivre bu intense ñaari ñaari maladie yooyu laa gis ne médecins yi dañ ciy bàyyi xel bu baax bon diabète bi moom on n'en parle pas parce que diabète bi moom carrément dañ lay isolé pour mun la defal pour éviter justement diabète bi répercuté ci ci doom bi mais en général sax ñooñu dañuy am euh, ñi diabète yi dañuy am habitude euh, diabète gestationnel bi nga mm-hmm. xamante ne daf leen di dal ci période boobu noonu day gën a fréquent ci période boobu ñooñu tam dañ leen di defal suivi bu spécial mais anémie ak tension moy ñaar yi nga xamante ne moom ah du may jigen bu wan bu wan lor dara. surtout tension hein. waaw tension ak anémie mom mayul jigen bu wan lor wan lor euh, xam nga naka lañ koy waxee. wan lor waaw lor dara. parce que d'habitude anémie bi déjà ni mi gëna ni mi njëkkee euh, fréquent moy amna ci femme yu bari yo xam sen alimentation déjà day compliqué parce que luñu ñu we lu lekk génnee ko dañuy am problème bu mooy jafte boobu noonu ñuy def noonu lu bëri dañ koy dañ koy rejeter seen organisme day rejeter lu bëri donc du coup du ñu am doole donc seen système immunitaire dafay affaiblir donc ñooñu da ngay gis dañ leen defal suivi régulièrement sax boo seetloo ñu ci bëri chaque semaine ñu ngi biir hôpital mhm. chaque semaine ñu dugal leen euh, euh, urgence defal leen perfusion téye leen genre pour justement mën a superviser loolu noonu pour éviter que muy am ay complications après à la fin di nga ci gis ñoo xam ne dañ dem ba mujj bi sa dañuy obligé césarienne lañ programmé ko parce que voilà ça devient compliqué compliqué absolument voilà donc ñu war a xam tamit ni que ñun jigéen ñi bon c'est vrai que parfois dañuy réewantu dañuy am suñuy état de réewantu xam nga mais man man man franchement li ma doon wax naan man dama doon dama doon ne ni que grossesse dafa nekk loo xam ne dafa extra méga c'est pas quelque chose de c'est pas une maladie au fait parfois jigéen ñi dañuy exagérer noonu laa koy gisee quoi man parce que man j'ai pas eu ce souci là pendant mes grossesses tout s'est mhm. bien passé mais je suis tombée sur un cas d'une amie bo xamante franchement mon grossesse am dafa métti won ba ci laa dogo a gëm ne. xam nga que affaire yi du ku nekk ak ni grossesse di réagir. je te jure que ne grossesse am du premier jour au neuvième jour au dernier jour da doon dugg hôpital génn.

<laughs> jafte bi mom jeex moy kula jappul ci digënté bobu mom dootu la jàppaat la ca dess mom dootu la jàppaat ñi nga xamné nak par contre sen seen da fay continuer c'est parce qu'ils ont une autre maladie parfois boo xamné ne daf ci rax moy waral ay na gay bu euh, kélé euh, Espagne nee mom moom dafa anémie ñun dañoo tàppet rek <laughs> tu vois donc donc donc <laughs> genre aspect yoy la mais euh, franchement man ci kaawu koku moom ah, la dogay xamné ni que ndekete jigéenu biir am na ci ñoo xamante ne seen cas du ay tapale daal c'est de la réalité ils sont vraiment malades man la dafa sonnoon ba nga xam ne da nga koy yërëm mhm. man dama doon mujj dama doon jaaxle sax moom danaan jékki-jékki xool moom yàgg ne ma ay may te noo doon def comment tu as fait quoi comment tu es arrivé à être bien ci sa grossesse bi mhm. sans problème et tout et que moom depuis ni muy bëgg a biir yëpp depuis biir bi ba feer bi bëgg a tusi dara xam nga bon voilà dañ ko mujj sax césarienne mais bi ñu mhm. ko césarienne doom bi judd nag wi ma incha allah mais ni rab

da ngay sonn voilà ngay gis ni que da ngay paal commencé di am na euh, sa peau bi di changer couleur ni ngay pal mel ni ku xawa xé kuy xess ni mhm. xam nga pal moom même bo xolé sa wey sax da nga sa wey yi weex xam nga sa beuti yi weex wala ñu commencé changer mhm. couleur bu commencé di joxé aspect jaunisse nak nga xamné peut-être dafa rax jaunisse donc vraiment genre attitude yoy bu ko nit ñi commencé di am rek nañu daw ga dem seeti euh, médecin mhm. mu xol len bu dé y a des analyses à faire ñu dem defi seen analyse yi ñu mëna détecter bu féké euh, anémie hémolytique hémolytique bi la ñu mëna ko traiter rapidement voilà traitement bi nag euh, voilà bari na aspect bi ñu koy traité donc ñoom ñooy xool exactement ci ban niveau nga toll ñu traité la ko mais daal foog naa ni mu gën a gaawee rek moo gën ba ñu nar a nekk fi naan dañu defal ay chirurgie wu rat beeg yooyu noonu pour éviter tous ces problèmes là franchement nañu euh, nañ nañ nañ nañ gaaw a dem ci médecin yi ñu jox la corticoïdes yi nga xam te ne ñoo lay permettre nga mën a euh, requinquer waat reprendre sa train train de vie normal ah. merci beaucoup Tata Maïté c'était King Santé ñu doon wax si anémie hémolytique mm-hmm. voilà bi nga xam ne mën na dal ñëpp suivre conseiller scrupuleusement tous ces dossiers médicaux pour bu ko les te bu ko les pour